te ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di rafetlu saa su nekk ànd bu gën a ànd ak ñun ci suñu différentes plateformes muy si YouTube bi wala si Facebook bi tey nag comme ni ngeen ko gisee dañoo dikkat ak yéen si li nga xamante ne mooy seen émission santé en 7 santé en 7 comme ni ngeen ko xamee rek day dugg si lépp li nga xamante ne moo nekk suñu wàllu wéru yaram fas ne leen ko digtal donc nag jàppale leen ba ngeen mën a faju xam feebar bu si nekk fan ngeen di dem pour fajoo ko donc nag moo tax tey on a jugé nécessaire ñu indi nag beneen façon médecine bi nga xamante ne nit ñi daanaka ñu si bëri xamuñu ko donc nag tey on a le plaisir ñu dalal fi nag yi nga xamante ne mu ngi wuyoo si turu Sada Kane nekk à la maison Rokia Sénégal donc nag moom mu nekk tradipraticien dañ koy bàyyi mu nuyu moo ko internaute Sénégal set yu koy seetaan Sada. salaamaaleykum wa rahmatullah Mané. nee na dalal jàmm. maa ngi lay fay bu baax. donc di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. donc di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. di sant borom subhaanahu wa taala di ko bakk di ko kañ ci ay turam yu sell ak ay melokaan muy kawe donc di leen nuyu di leen wax ne man jëm ji toog moom moo nekk Saad ibn Abi Waqqas mu nekk fële ca maison Ruqiyya Sénégal bu nekk au niveau de Malika Malika plage plus précisément mhm. donc ñu ngi rafet lool li nga xamante ni moom moo di invitation bi waaye tamit di leen ñaanal tawfiq ak salaam ànd ceeg téléspectateurs yi ak ñu nekk télé bi aussi. voilà euh, mu ngi noonu nag moom nag mu ngi wuyu si sa Sada Kane li muy def nag mooy euh, mu ngi nekk à la maison Rokia bu Sénégal donc nag déjà balaa ñoo tàmbali rek lan mooy Rokia. aywa alhamdulilahi rabbil donc balaa ñuy wax lan mooy ruqiya mhm. mbokk yi dañuy war a comprendre que ne islam dafa matale. Mhm. te matale ga mu matale moom moo waral islaam bu nekkoon dafa ñëw képp di digal nit ñi nañu julli wala nañuy woor wala nañuy def su sudul noona te fekk ni islaam duggul ci côté sanitaire mhm. kon ñu xam ne islam dafa manqué donc islam aussi xam na luy santé islam xam na luy santé mhm. moom moo tax ruqiyatu shar'iyya ñëw en place ñu tuddee ko shar'iyya ndax ruqiya képp mu nekkee ci kalimam ak ci turam képp lañ ca yem mhm. ruqiya moom mooy mocc mocc nag bëri na façon am na ñoo xamante ni jaan bu la màttee na ngay mocc ak yeneen ak yeneen mhm. yooyu yëpp ruqiya la tudd mhm. waaye lu ñu utale ak ñoom mooy shariya bi ñuy jëfee mhm. shariya bi nag mooy bu tënku ak sharia bu ànd ak alquranul karim ak sunnatu bu ñu ko waxee mooy ñaani yonente bi alayhi salatu wasalam ñu fi donc lii moom mooy ruqiyatu shariya d'accord donc nag euh, ñu gis ne euh, da ngeen ne euh, fàcc li nga xamante ne mooy feebar yu bari. Mhm. donc tey jii nii bu ñu nee santé en set wàllu wér-gu-yaram moo tax. Mhm. ñu ñëw fekk si leen yéen itam ngeen def trad ngeen nga nekk yow tradipraticien mhm. di def beneen façon pàcc bi nga xamante ne nit ñi ni ngi ciy gis seen wér-gu-yaram mhm. ñu nemmeeku si nag li nga xamante ne mooy ay ay douleur mhm. yi nga xamante ne loolu macha allah ngeen koy defee xam mooy ventouse est-ce que mën nga ñoo leeralal loolu waaw ala kulli xaal xijaama bi ñuy jëfee maadaama ne chariya la dafa tënku ci mbir mi nga xamante ne nii maanaam mbirum yonent bi alayhi salaatu salaam la donc lépp lu doomu aadama di def ci ruqiti chariya na fekk ne am nga ko justification ruqiya mooy mocc mhm. ya comme li ma leen ko waxal bu tënku ak sharia mhm. ruqiya lan lay faj est-ce que benn feebar la est-ce que mhm. ñaar la est-ce que ñett la déedéet ruqiya lépp lay faj maadaama ne nag lépp lay faj donc dañ koo différencier ci différents types maison ruqiya Sénégal nag aw genre bërëb la boo xamante ñu ngi cay fajee ci différents types de méthodes méthode bi ci jiitu mooy ruqiya muy mocc bi ñuy def mooy ñu amee cheytaane ñu amee faru rab ak coro rab ñi nga xamante nii dañoo amee ay mbirum njibar wala ñu amee ayn li ñu woowee cat et ak ni ni mel ñaareel moom mooy xijaama bi nga tudd léegi mhm. boobu benn pàcc la ci ruqiya ca la muy jëf xijaama donc médecine la ancestrale boo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko doon jëfe ànd ceeg loola tamit di conseil communauté am di jëfe ca loola mhm. ndax ba mu demee rañaan jël julli rombul groupe malaaka te newuñu ko yaa rasulallah digalal sab xeet ñuy faju ci xijaama ndax xijaama muy la ventouse. ndaxte ventouse loolu la ko français di wax. Mhm. alxijaamatu loolu la ko arabe di wax. capping thérapie moom la ko anglais di wax. donc olof yi nag di ko wax gàjju donc médecine la boo xamante ni depuis suñu yonent yàlla aadam ba suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koy jëfee walillahi alhamd mhm. waaye yonent bi alayhi salatu salaam xamal nañu ne ci xadis bu leer que ne aw xeetam tënk nañ seenu pàcc ñett mhm. bi ci jiitu moom mooy xijaama mooy ventouse bi ñu leen di wax mhm. ñaaril bi moom mooy euh, ci gàjji gàjji moom mooy am na ña nga xamante nii masalan ñoom seen xol buy metti mhm. wala bu ñu amee fenn awsa yi dañuy dem ñu ñaasal leen fa lool wala ñu defal leen fi ñaari ñaas mhm. donc loolu mooy gàjju mhm. wala lem donc ñett yooyu noonu la wax waaye moom nee na préféré na xijaama ak lem ak donc lii moom mooy xijaama muy faj nag bépp façon médecine ndax yonente bi alayhi salaam nee na maadaama ne xeetam tënkoo nañ seeni pàcc yii nii donc alhamdulilahi rabbil alamin te ñun expérience yi ñuy def ci milieu bi gis nañ ne xijaama walillahi alhamd amut feebar bu mu tëcca loola mu nekk douleur corporelle mu nekk nit ku amee AVC mu nekk nit ku amee nerf sciatique mu nekk nit ku amee ay articulation ci ay tànkam mu nekk nit ki nga xamante ne nii dafa am ay tëccu tëccu ci yaram wi mu nekk nit ki nga xamante ni yaa xam lépp ban fee bépp feebar boo am mu lay metit loo ngay mën a taxaw ak jóg ak toog ak articulation yoo xam ne lu mënta doon xijaama incha allah remède bu baax la pour loola. d'accord donc nag ñu gis ne li nga xamante ne mooy sportif yi. Mhm. ñoom daanaka ñoom ñooy gën a faral di di ñëw li nga xam ne mooy ventouse. naam parce que euh, ñaam ñaaree dañ naan. Mhm. Euh, ñoom ñooy gën a faral di am ay douleur douleur musculaire ñooy gën a faral di am ay métit. wala soit dafa fekk ne ñoom ñoo gën a xam. Mhm. loolu njariñ bi mu am parce que sportif yi tamit. Euh, gis nañ ni dañ koy def lu bëri. waaw macha allah de toutes les façons xijaama moom amul kenn Mm-hmm. ñëpp ci am aajo. Mm-hmm. dafay des kay nga xam ko wala nga ñàkk koo xam. parce que différents types de xijaama ñoo am. Mm-hmm. ñi xam xijaama laay waxal. parce que tey allah mustaan da gis ñi nga xamante nii dañuy ubbi ay cabinet di naan dañuy def xijaama te boo leen laajee xamuñ sax lan mooy xijaama sunna wala yan point essentiel la ñuy teg. te xijaama médecine la boo xamante dafa sensible donc balaa nit di ko pratiquer dafa war a am xam-xam buy firndeel ne kii am na xam-xam boobu. donc ay méthodes. quatre types de méthode la bi ci jiitu moom mooy méthode sec moom mooy bi nga xamante ni xijaama bi ñuy defal comme keroog gis nañ benn joueur Benzema mhm. mu def xijaama boobu noonu après match bi summeeku na ba gis gars yi gis ay tampon xijaama moom. waaw ah, parce que tubaab bi moom ah, xam baarakallah fi xijaama boobu noonu moom mooy xijaama sec boobu ñu ngi koy defal sportif yi mhm. parce que soxlawu dagg. Mhm. ñoom seen yaram tàng na moo tax jeune bu nekkee ci diggu dooleem di dem ak a ñëw di def ay mouvement kooku soxlawul ngay dagg deret bi donc moom boo ko defalee. aspiration tuuti rek mhm. moom bu dawee deret bi après dina circuler correctement moom mooy benn ñaareel moom mooy xijaama égratignure mooy bi nga xamante ni dañuy ñaas tuuti génne aw deret bu dee wi mhm. lu tax nag ñu ne deret bu dee ngeen jéggal mu tuuti mhm. moom mooy doomu aadama lii daw ci yaramam ci kaw ba ci suuf aw deret la te deret moom moom mooy tax doomu aadama di fonctionner donc des fois nit ki mën na am aw tëccu tëccu ci yaram mu jug dox aw soxlaam foofu ak foofu mu bañ a metti léegi nag deret wu dee genre boule lay doon ay gouttelette yu ndaw lay doon coagulation yooyu noonu moom mooy daw ci veine yi mhm. des fois nag moom mooy tax dafay bouché ba deret bi du mën a circuler comme na mu waree léegi nag moom moo tax des fois boo amee problème imma ngay plier ci say articulation wala am na ñi nga xamante dañ ciy am sax problème AVC parce que seen deret circulé wul correctement surtout ci côté gauche bi parce que moo gën a sensible donc da ngay gis ne loola bu nekkee xijaama mhm. biñ lay defal moom mooy xijaama et graniture dañ koy ñaas tuuti comme ça deret wu dee bi mën a mën a génn bu mooy ñaar ñetteel moom mooy xijaama massage massage xijaama la boo xamante ni dañ koy defal les femmes enceintes dañ koy defal xale yi dañ koy defal ñëpp daanaka mhm. surtout nag ñi nga xamante ne ni dañoo amee ay douleur chronique ñu amee li nga xamante ni moom moo di diabète ñi nga xam mënu leen dagg mhm. donc ñooñu dag ñu koy defal comme ça ngir douleur bi gën a mën a wàññeeku seen yaram ba mooy ñett ñenteel moom mooy xijaama AO AO bi nag Sénégal daanaka man gisaguma ñu ko fi pratiquer. daanaka parce que ñun ba génnee ak ba ñu ñëwaatee Sénégal ci lañ ko commencé pratiquer mais daanaka extérieur kese presque lañ koy lañ koy pratiquer. lan mooy particularité bi. moom mooy xijaama AO non seulement dafay soulager. Mhm. mais aussi dafay dimbali doomu aadama ba nga xamante nii dafa amee. Euh, comment dirais ay allergie ci yaram bi parce que am na ñoo xam ne dañoo am allergie seen yaram dafa seen yaram dafa oyof lool mhm. wala ñuy am ay tàngoor seen bit yaram surtout ñi nga xam dañu am ay faru rab wala coro rab mhm. des fois yaram bi mën naa tàng am ay bouffée de chaleur mhm. donc loola boo ko defalee xijaama ao walillahi alhamdu da nga ci am expérience d' accord donc ah, donc kon euh, ça veut li nga fi expliqué yépp parce que mhm. sànq yaa wax ne euh, bi nga xamante ne mooy euh, xijaama a sec bi si je me trompe pas boobu mënoo koo defal ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee jabet déedéet xijaama sec bi mooy bi nga xamante kenn du dagg. mooy ñi waaw mooy ñi am jabet nga koy defal waaw boobu ñu am jabet nga koy defal ñi nga xamante ni am nañ métit mais après mën nañoo marcher mën nañoo liggéey ak seen i métit wala ña nga xamante ni au moins comme les femmes enceintes aussi. donc mën nga bëgg a def foofu rek c'est mhm. juste que donc kon mhm. balaa ngeen di def euh, mhm. benn euh, mbir si nit da koy caytu il faudra d'abord la consulter raison pour laquelle des fois les gens nous contactent pour nous dire maison Rokhaya Sénégal est-ce que dañoo bëgg def xijaama est-ce qu'il faut faire dañ leen naan ñëw leen ngeen def consultation. ok parce donc c'est obligatoire. c'est obligatoire il faudra obligatoirement faire la consultation pour ñu xam nit ki lan mooy sab jàngoro. Mhm. donc bu ñu ko demee ba saytu ba noppi ci la ñuy xam kii lii la am aajo mais xijaama nag dafa am ay mbir yu exceptionnel ne ci biir. Mhm. parce que yonent bi alayhi salaatu salaam taamu na ci ay bés yi nga xamante ni nii ay bës la yu am doole ay bés la yi nga xamante ne plen lune bi ci lay génn. Mhm. li ci mel ni 17 ak 19. ak 21 donc ay bés la yoo xamante ni yonente bi alayhi moom moo ko tànnal boppam xamal ñu ne nañu def xijaama ci lii donc lu am solo la. comme man mën naa toog ba ci yàgg contacter maison Roqe Sénégal ne dama am aajo ci xijaama. Mhm. mais xijaama ma soxla moom mooy juste xijaama périodique mooy prévention. Mhm. nga def xijaama boobu noonu boobu moom boo ñëwee mën nañ laa fixer séance bi incha allah. voilà euh, pour vous rappeler ami internaute yéen a ngi ki nga xamante ne mooy Sada Kane nekk a la maison Roqia Sénégal donc nag gis ngeen li nga xamante ne moom lay def euh, donc euh, li ñuy wax santé en set la du ñu yem rek si nga xamante ne mooy médecine moderne bi certes dëgg la. am comprimé ça dakaan di ko naan mu lay soulager c'est bien. Mhm. mais aussi am beneen euh, euh, mbir bi nga xamante ne boo si demee euh, gëstu si dem faju si di nga am tan loolu aussi yaakaar naa ne si santé la bokk. Mhm. donc ñun tey li ma bëggoon nga ñëw si mooy. Mhm. wàllum hémorroïde. parce que gis nañ ni carrément kat ñu si bëri macha allah ñu ngi ñëw. di leen approché si wàllum yit dafa sonal la bu baax a baax. léegi sax ndaw ñi. donc mën nga ñëw tuuti si hémorroïde naka ngeen koy fajee. aywa alhamdulilah rabbil alamin donc ñu ngi leen di santaat bu baax. Mhm. ala kulli xaal hémorroïde aw feebar la aw néwi néwi la bu nekk ci biiru yaram doomu mhm. donc nag ci côté anus bi lay ne. Mhm. des fois bu nekkee néwi néwi bi ci biir la féetee kooku moom mooy hémorroïde interne. bis bu néwi néwi bi demee ba génn mu commencé di lang ci biti kooku moom mooy hémorroïde externe. donc hémorroïde nag ay yëf-yëfaan yi koy indi bari na lool. parce que am na doomu aadama yu bari yi nga xamante tey ñu ngi jànkonteeg ak ay hémorroïde te xamuñ ne ñoom hémorroïde lañ amee. mën nañ ko amee suñu aliment mën nañ ko amee ci toogaay gu bari wala liggéey gu metti mhm. wala ak ay effort yoo xamante ne nii ba pare te après organisme duñ ko jox lu ko war bu boobaa nag doomu aadama mën naa am yi ni mel donc hémorroïde nag ñun dañ koy fajee sax ci méthode bu tudd xijaama ak ay médicaments yu sophistiqué parce que ñun encore une fois ruqiya mu ngi commencer la où la médecine s'arrête parce que des fois nit day dem ci hôpital def aw test wala def aw rajo fekk du ñu gis lenn te nit ki mi ngi yëg aw feebar ci yaram. effectivement donc loolu bu amee nag incha rab ruqee mën na ci dara. te ñaaree dogguma la ñaaree dañ naan leen carrément lii faju olof la. voilà da ngay dem si maama ñu faj. mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu loolu après incha allah. dinañ ci ñëwaat waaw côté boobu incha allah dinañ ci comparer wax leen alfarq mhm. bay na ruqiya ak ña nga xamante ne ni ñoom ñooy ñoom la ñuy woowee maamuni ak mbir yooyu. incha allah mhm. donc ala kulli donc bu dikkee ci ñun amal nañ ko ay médicament spécial yoo xamante ni dañ koy jox nit ki ak ay régime aussi interdire ko ñett yi loolu aussi dama leen koy baaxee comme ça gars xam ko ñu amee hémorroïde ku amee hémorroïde na ngay moytu pat bu bari na ngay moytu yàpp guddi na ngay moytu banaan na ngay moytu gerte wala li nga xamante ni par exemple moom mooy voilà vous avez tout compris surtout nag aussi nga gaaw a reer comme ça mu gaaw a rees beneen bi moom mooy hémorroïde kenn du ko forcer am na ñi nga xamante ne dañuy juum ca loola dañuy amee hémorroïde di naan meew bu bari mhm. dañuy ame hémorroïde di naan ay garab yu tudd sana te loolu dafay forcer hémorroïde bi te bis boo ko forcer dafay génn nekk externe ah, moom mooy tax ah ala kulli xaal donc hémorroïde loolu boo ko amee yëf-yëfaat yi da koy moytu hémorroïde boo ko amee mbokk yi del naan ndox mu bari sa toogaay bu nekkee dafay yàgg del jug tuuti doxantu voyage bi bu nekkee mën na limité walillahi alhamdi yëkkati lu diis aussi la même chose parce que hémorroïde bu yàggee ci doomu aadama surtout góor daf koy créer li ñuy woowee faiblesse sexuelle parce que ñëpp xam nañ ni biir ak ndigg dañu am problème mhm. yaa a des gens yoo xamante ni dañoo amee hémorroïde mais hémorroïde bi moo tax seen i ndigg di metti mhm. colonne vertébrale bi jàpp seen chentil wàcc suuf mhm. donc daal hémorroïde incha allah ku am muskila ni ni mel bi iznillah boo ñëwee ruqi ci shara yéen ubbil seen buntu incha allah. voilà noonu la ko euh, décortiquer si wàllu hémorroïde nga xamante ne ñu ngi ma doon poser question donc Sada Kane leeral na ko mm-hmm. euh, mu mel ne nga xamante nañu loolu muy wàllum diabète. waaw parce que diabète euh, jamono ji mu ngi commencé di def ravage. Mm-hmm. mu ngi bëri xale yi mm-hmm. ndaw ñi ñu ngi koy am. da ngay gis tout tànk bu ndaw ndeysaan ay atam tollu dara. mu am diabète moom aussi mais tout le temps dañ naan diabète kenn ko faj. Mm-hmm. jabet dañ koy jël traité ko. Mm-hmm. wàññee euh, li nga xamante ne mooy dose bi. Mm-hmm. ala kulli xaal la ma cay mën a wax ci côté boobu. moom mooy ruqiya illimité wul dafa limité. moom mooy ruqiya lépp loo xamante ne nii médecine moderne teg na ci aw tànkam. mbokk amal aw wàcceen lii médecine moderne daf cee teg tànkam. parce que ñun dañuy fekk lu anormal. ñu jéem koo normaliser. moom mooy nit ki amee ay yëf-yëfaan yoo xamante ni comprendre ko ci boppam. loo xamante ni kenn amulu ko solution ñu indil ko ca loola. ala kulli xaal am na nag ay maison ruqiya yoo xamante ni dañuy naan dañuy faj jabet mais ñun à notre issue ku ñëw ci ñun am diabète dañ la daan mbokk dafa am feebar yoo xamante ni ñun dañ koy avancé ca loola am ay feebar yoo xamante ni ñun dañ koo bàyyi ak ñi nga ni moom moo di donc en résumé yan feebar yi nga xamante ne moom bu nit ki bu ñëwee si yéen mhm. dina si mën a am tànn bu baax a baax yan fe yan feebar la waaw alhamdulilahi rabbil alamin feebar ba may njëkk a wax mooy feebaru seytaane mhm. ndaxte mbokk yi ñu xamal leen ne seytaane ñiy taxaw tey ci tele bi di wax ci mbir mii ak sujet bi mhm. dafa bari mais ñu ko maîtriser wul dañoo bari. te Sénégal dañoo am seen i réalité mooy képp ku taxawut am grand bu bu yor sa ngën di kurus toog waroo wax ci jiit ne. <laughs> loolu mooy seen réalité donc là c'est la réalité moo tax des fois nit dafay ñëw suñu cabinet bu ñu gisee ak suñu jëmm yu doyadi yi donc dañuy xeeb ca loola. Mhm. te on se comprend parce que Sénégal dafa am ay réalité mais alhamdulilah boo jëflanteeg doomu aadama ba noppi ci lay xam lu mu doon donc liñ leen mën a wax rek moom mooy seytaane c'est pas xam-xam bis boo ko jàngee rek di nga ko mën a maîtriser di ko def naka su dul noonu ñaareel moom mooy képp ku amee seytaane yaa xam lu mu mënta doon caru caru rab la faru rab la yaa xam ne dañ laa njibar yaa xam ne da nga am ay mbir yoo xamante ni ayn la cat la bu ànd ak njibar parce que la plupart des gens dañuy am ni ni mel. lan mooy njibar ci français. barakallah fi njibar moom mooy la sorcellerie. d'accord. donc excusez encore une fois ah donc njibar voilà donc njibar kulli xaal ñun ay pël lañ sax waaye allah mustaan donc njibar moom mooy la sorcellerie et la sorcellerie donc bëri na asl am na fu mu jóge amaana ci beneen débat ñu gën ko yaatal incha allah seytaane jël ko doomu di ko jàngal doomu aadama yi moo tax borom subhanahu wa taala di ñu xamal ci al alquranul karim ashaytaana kafaru lu lu tax ñu weddi ndax yuallimuuna naasa sihra ndax dañuy jàngal doomu aadama yi li nga xamante moom moo di njibar ca lañ leen di jàngal ñu ngi leen di jàngal al farq bayna al i wa zawji ni ñuy tàkkalee diggante jëkkër ak jabar donc loolu njibaar moo koy def mooy la sorcellerie mhm. donc képp ku amee sorcellerie yaa xam lu mu mënta doon bi isnillah maison Rokhaya Sénégal pare na pour accueillir la parce que ñun am nañ ay différents types de patients yi ñuy jël mhm. dañuy jël patient à distance ñu nekk au niveau de l'extérieur mhm. que ce soit France Canada et cetera ba am nañ ci ay patients yal na leen yàlla may tawfiq ñeneen ñi moom mooy patient à domicile mooy ñi nga xamante ñoo diis lool ba mu ñoo jóg ñun mën nañoo wu am nañ équipe xaas boo xam mën na jug déplacé wu dem ci ñoom hospitalisé ñi nga xamante nii dañuy ñëw hospitalisé au niveau du cabinet am nañ fa ba instant nii am nañ sax ñi nga xamante ne bàyyi naa leen fa dañoo hospitalisé au niveau du cabinet am nañ aussi ay patients xam ne dañuy ñëw ak dem di jël ay rendez-vous et cetera ku nekk ak sa lii donc lii dañ koy faj ñaareel bi moom mooy coté douleur yi mhm. ruqiya day faj douleur ruqiya day faj rhumatisme ruqiya boo ci jëlee nga def ci xijaama bi iznillah azza wa jal nit ki nga xamante ni dafa amee impuissance sexuelle daf koy faj Euh, sotti ceeg def ci la daal sotti ceeg def ci la parce que lépp charia la. donc si je comprends bien yéen da ngeen di boole. Mm-hmm. tradition. Mhm. ak modernité bi. Mhm, voilà boole ko bu ko defee parce que déjà xam nga xam nga xijaama macha allah xijaama mooy la ventouse. Mhm. médecine la boo xamante ni importance bi mu am dayoo moom moo tax en 2004 organisation mondiale pour la santé reconnaître ko. effectivement donc reconnaître gi mu ko reconnaître nag moom moo tax tey la plupart bu ñu tappee au niveau de l' internet dañuy gis ne ñi koy gën di utiliser mooy les blancs. les sportifs les gens célèbres et donc ñii ñoom ñooy utiliser la nga xamante ni moom moo di xijaama waaye xijaama dafa bokk ci ruqiya kenn mënu ko caa génnee parce que lépp sharaiya la mooy sharaiya moom mooy sunna te xijaama sunna la donc mi ngi noonu donc yii nii aussi daf koy faj quatre maladies mi ngi nii yoo xamante ni bi iznillah azza wa a la vie mhm. nit ki nga xamante ne nii dafa bëgg ouverture maanaam dafa tëju daal dafa tëju mhm. donc dafay dem dépose ay papier wu mel ni daa am lu ko fay jiitu ko fa yàqal Euh, mën na am ay gel ak ay far nag waaye mariage saa yu taxawee kenn du xam fan lay jaar. Mhm. ñetteel bi moom mooy nit ki nga xam ne mënul téye xaalis loolu mooy perte argent blocage perte argent ak xale bu intelligent. Mhm. professeur am xam na ne kii melu ni saab. Mhm. examen yi normalement dafa war a am mais saa yu demee dafay daanu wala muy échouer mais échouer répétitif kooku c'est anormal lii yëpp ay blocage la et cetera problème de santé anormal mooy ki nga xamante nii dafa feebar comme la ma la waxoon dem na hôpital. il elle a fait toutes les analyses possibles rajo scanner tout mais gisuñu dara te pourtant nit ki ngi feebar. pharmacie pharmacie taxaw na fa garaboo garab naan na ko. waaye malheureusement toujours mi ngi ay métit ci biir yaramam. beneen bi moom mooy nit ki nga xamante ni day am ay plaie wala ay góom yoo xam ne day génn durée pendant dix ans ñu koy pansement di ko yóbbu di ko indiwaat te fekk ne mënta wér ca loola loolu problème de sorcellerie la. Mhm. beneen bi moom mooy ak ka nga xamante ne nii aussi donc moom ci boppam période bu nekk dafay feebar. janvier ba janvier dafay feebar. comme ñi nga xamante ne nawet ba nawet dañuy feebar. vous avez nawet ba nawet dañuy feebar. donc mu ngi noonu donc yooyu la plupart sorcellerie daf koy def. Mhm. ñetteel moom mooy problème mental anormal mbokk yi bu ñu waxee problème mental waxuñu dof ñi kese. voilà problème mental mooy ñi nga xam ne dañuy toog di jooy te kenn defu leen lenn ñuy toog xëy ci kër gi. Mhm. mere ñëpp te kenn defu leen dara. ñuy toog di baarakallah fi ñuy toog ñoom kese bëgg solitude bëgg fay lampe. Mhm. ñemewuñu ison la peur colère was-wasa foo leen fekk seen bopp tranquille donc comme ça. ñuy waxtu tamit si waxtu et tout ça donc noonu la ñuy demee ba tey ba ba folie dugg. donc lii mooy problème mental. lii aussi ku ñëw incha allah nañ ci jàppale beneen moom mooy les cauchemars mbokk yi dañoo war a xam ne toute sorcellerie bu ñu def doomu aadama bi nit ki daf koy gis dans les rêves. moo tax des fois on rêve de poursuite on rêve des serpents on rêve des fois des des des des djinns qui viennent en nous mais en forme d'humaine on rêve de sexe surtout waxambaane yu góor ñi ak yu jigéen ñi incha allah ngir ragal yàlla takk jabar donc loolu dina ko wàññi incha allah donc beneen bi moom mooy yii nii yëpp nag mooy quatre maladies yu jinne mën a causer doomu aadama ku mën a indi leneen incha allah pare nañ pour jël. voilà donc ñett yi tax jinne di la def lii mooy sorcellerie jin mauvais oeil sorcellerie mooy nit xool la neexoo ko mu def la ko. Mhm. wala jin xool la neexoo ko mu def la ko. Mhm. parce que des fois jin kenn du ko yónni daf lay gis ak sa beauté nga neex ko mu dugg la. kooku mën na laa topp deuxième moom mooy jin jin moom mooy maamu saat wala maamu keneen dafay am pacte ak les seytaane mhm. léegi nag loolu wàcc wàcc njaboot yi sa njaboot yi mënuñ ci dara y a des gens ils n'ont pas de blocage ils n'ont rien mais ils ont des poursuites loolu poursuite de jin ñetteel moom mooy mauvais œil li nga xamante moom moo di al ayn lu yonente bi alayhi salatu salaam xamal nañu ne al aynu xaqun mooy cat lu am la Mhm. ndax cat moom mooy fekk ñaari nit yu waruta ànd mu boole leen mhm. ñaari nit yu war a ànd mu tàkkali leen mhm. kër gu rafet mu ràppuloo ko mariage bu ñëpp wax macha allah mu divorcé loo leen cat yonente bi alayhi salaam xamal nañu ne cat moom mooy fekk gëléem ba dugal ko ci kàmb ci cin ñu mën cee déggee ne cat mooy topp doomu aadama ba dugal ko ci musiba naara la ci musiba naara la donc loolu mooy cat lii nii nag bu amee seytaane mën na laa topp en dehors de tout ça hémorroïdes interne externe. Mhm. faiblesse sexuelle Euh, que ce soit nga am ay douleur articulation ak AVC surtout AVC. Mhm. parce que AVC problème de sang la c'est le sang qui ne circule plus moo tax boo teewee nit ki fii day commencer néew surtout côté gauche la gën a bëri di jàppee doomu mhm, aadama yi. parce que foofu dafa sensible mhm. donc loo côté boobu la leen di jàppee ba duñ mën a def dara ba duñ mën a yëkkati tous. mais si côté AVC boobu Sada bëgg naa parce que à chaque fois. dañ naan euh, wàllum jinne ay affaire paralyser loolu est-ce que loolu c'est vrai. waaw ala kulli xaal li ñu mën a dégg mu leer tey. Hmm. moom mooy seytaane mënul créer feebar. waaye da cay mooy. da ciy mooy. voilà vous avez compris. Hmm. cest à mën na fekk aw doomu aadama muy souffrir bopp am problème bopp. Mhm. mu def loo ko. ok cela veut dire que maanaam mën na yokk sa feebar ba yow boo demee hôpital dañ la naan non normalement yow lii nga amee mais à ton âge ngay am lii c'est anormal. y a des patients qui disent ça voilà bopp métti répétitif. répétitif surtout nag bopp nag di boobu dafa dafa doy waar boobu na parce que bon ñu. Mhm. déjà ñu bëri dañ naan booy dox si naaj bu tàng. Mhm. ngay nekk surtout ñun ñi nga xamante si tàngaram lañ nekk tout le temps dañ suñu xaaju bopp yi day métti. waaw non de non de toutes les yi moom am na fu ñu ne. ok parce que chaque jour des fois da dégg am na ñoo xamante ni dañuy nekk ci télé yi mhm. nan la jinne bu baax la yor ak ay rab yu baax laa yor ak ak allah mustaan foofu laa bëgg ah, nag mu nekk suñu deuxième partie bi nga xamante ne dañuy waxtaanee parce que mhm. Ruqya dafa boole mhm. euh, li nga xamante ne mooy ñaari mbir mhm. tradi moderne donc nag waxtaan nañ nag si li nga xamante ne mooy modernité bi et tout euh, li muy def li muy faj donc nag nga gis ne à chaque fois euh, day day day ñëw dugg si li nga xamante ne mooy l'islam di ko rajouter si li nga xamante ne moom la médecine teg donc tey jii pour ñu def rek la part des chose ñu dugg si deuxième partie bi nga xamante ne day wax essentiellement si ñi nga xamante ne dañ naan dañuy faj ay jin ku am rab. ku mm-hmm. am jinne fii. Mm-hmm. ku dugg na fii génn fii damay faj feebar bi ba mu wér si ay sëriñ comme ni nga ko waxee sànq def grand bu pour ñoom daal mag ñi mm-hmm. rek ñoo xam. donc euh, nga leeral foofu. parce que si Sénégal comme ni nga ko waxee dañoo am suñu réalité. bu ñu gisee ab euh, xale bu ndaw. ñu ne noo kii xamul dara. toog di wax ne mën naa faj nii mhm. am naa ay jinne gu baax mhm. boo xamante ne day day génnee damay ñëw génnee say jinne mhm. jox la jinne bu baax bu ko defee nga mën a nekk si jàmm réaliser ses rêves boobu waaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ñaanalaat tawfiq amiin donc ba tey seen mbokk Saad Ibn Abi Waqqas maison Roqe Sénégal donc leeral question bi nga posé c'est très important naa ne est-ce que mës naa toog une semaine te répondre ci question yi ni mel. parce que tellement que les gens y posent donc mbokk ma àndal xam na loola. donc de toutes les façons ruqiya ash-shar'iyya amut coïncidence wala fépp fi nga xamante ni foofu la ñu daje. Mhm. ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy maamani fenn kese la mooy jinne ñu boole. salaamaaleykum mais à part jinne ñu boole suñu méthode ak ni ñuy jëfalanteeg loola c'est diamétralement opposé ñun incha allah alquranul karim bu set la ñuy jàng sab nopp te képp koo dégg mu ne la ruqyati shar'iyya lay def mhm. muy wax loo déggut muy laam-laame loo déggut muy wax ay mbir yoo xam ne ay baatu boppam la mbokk boo ko ñemee boo ko mën ñëw ay jat ne ko defoo boo ko ñemee boo ko ñamul bàyyi ba génn bu nekkee baa bu nekkee baa nga sant bàyyi ba génn nga dee ki nga àndal ne waa ji ni waxul <laughs> oh, donc ñaareel bi moom mooy uh-huh. li nga xamante ni moom moo di ruqiya bu jëfee alquran sunna la ciy teg moom mooy duaa yi audu bi kalimatillahi tammati allati la yujaawisuhunna ay duaa yu am solo yu ñu yonente bi alayhi salatu salaam bàyyee yu tax nag ñuy protéger wu ci ni ni te insha allah lii la ñuy tënk di ca loola allah di ko dëggal uh-huh. xamal nañu ne baada audu billahi min ashaytani irrajim wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa wàccee nañ ci alquran aw mbir mi nga xamante ne luy faj la waaye est ce que fala yam déedéet wa rahma mu nekk tamit aw yërmande ñeel ñu gëm ñi lil muminin donc alquranul karim ñëw na wàccul képp pour nit ñi di ko jàng waaye dafa wàcc tamit pour dimbali ñu ci mbirum paj mooy yërmande bi nga xamante ne barakallah moom mooy yërmande bi nga xamante dafa élargi mhm. ruqiya bu dikkee ci doomu aadama bu ñëwee insha allah dañ koy consulter duñu istixaara insha allah ñaareel bi moom mooy tamit nit ki bu ñëwee ñun duñu weexal dañuy fayeeku insha allah ñetteel bi moom mooy ka nga xamante ne nii dafa am ay problème seytaane bu ñëwee duñ ko génneeloo ay sacrifice sacrifice yooyu danañ ca dikk parce que dafa am sadaqa am sacrifice sadaqa mooy lan mooy mbir moo xamante nii maane dafa jóg gis ne dëkkandoowam am na aaju ci saaku ceeb mhm. te kenn waxu ko ko mu dugg ci boutique bi yëkkati aw saaku ceeb ñëw ci kër gi dëj ko fa gars ne ko ajaaraama mu ne leen xaaruma ci yéen jazaan wala shukura mhm. ndax dama ko def fi sabilillah loolu mooy sadaqa mbir moo xamante ne tamit buñ la ko delloowee di nga ko njëriñoo mhm. waaye ñett bekk suukar billahi aleykum lan nga koy doyee sondeel lan nga koy doyee parce que yooyu ay yëf-yëfaan la yoo xamante ne pour doyee di loo doomu aadama yi la islam amul ñett yi may waaj a wax notion de couleur amul ci islam génneel xar bu weex ak xar bu ñuul ginaar bu xonk ak et cetera et tout bañ ko laajee seytaane yi bañ leen capturer lu ñu wax moom mooy dañoo bëgg a différencier li yéen li ngeen di jox seen Allah ak ñun li ñuy jox suñu. maanaam loolu da leen di dooleel suñu bopp barakallah fekk beneen bi moom mooy istixaara mbokk yi istixaara mbindeef du ko defal mbindeef nit daf may woone ne ma istixaaral ma mais dama koy reetaan. Mm. lu waral loola parce que gars yi jànguñu. yonent bi alayhi salaatu salaam dafa doon leeralal soxaaba yi comme lim leen doon leerale benn aaya ci alquran nu ñuy defee istixaara mhm. xamal nañu ne istixaara nit ki moom mooy jàpp ba set defal ko boppam julli ñaari rakaa am na ay xas sa pour loolu nit ki defal ko boppam. mais loolu foog nit ki xam ko ni ñu koy defee. nit ki xam ko ni ñu ko defee ak mbir yooyu noonu islam amul lenn lu ci diis boo déggul arab incha allah nga wax ko ci lu ko bi nga. di ah, nga dégg moom dégg na làq dégg na làq yëpp waaye nag pël la gën a dégg <laughs> donc boo defee noona ala kulli xaal di nga egsi ci sa bopp nga xamal sa boroom ne soxna si may waaj a takk voyage bi may waaj a dem entreprise ba may waaj a ubbi lii may waaj a def yaa rab bu nekkee moom mooy li gën ci man ci àdduna fii ak ci alaxira yàlla nag ma yombal li ni mel nga waxaat ko yow sama borom bu nekkee soxna si may takk jëkkër ji may ut entreprise bi ma nekk liggéey bi may def et cetera et tout ça bu nekkee gënul ci man fii ak fële yow yaa rabb yàlla nag ma wattul loola indil ma li gën ci man nga bañ a def istixaara séeréer mooy yow borom bi bu lii gënul ci man def ko mu gën ci man parce que yow yaa gën xam mbir ak xam dara loolu du istixaara loolu duaa la loolu ñaan la insha allah mais istixaara mooy tànnloo tànnloo da ngay bàyyi borom subhanahu wa taala mu tànnal la am na ñi nga xam ne dañ naan istixaara naka lañ koy gisee mm-hmm. est-ce que da ngay toog ay bagage di wàcc est-ce que déet laa laa laa laa istixaaru demee noona istixaara bu ko borom subhanahu wa taala nangulee bu nekkee ay papier la da ngay dem mbir mi di gën di yaatu bu nekkee jabar la dangay dem can bi di gën di yomb. lijjanti bi di gën di baax yoon mi di gën di leer. bu nekkee nag c'est le contraire da ngay dem affaire di am ay empêchement. nga dellu di am ay empêchement di dellu ginnaaw waaye tey allah mustaan dañuy jox benn saat boo xam moo la dàq nelaw nga ne ko fanaanoon donc moom mu yeew incha allah di la ay waxu biddéew ay waxu ngelaw ay waxu sa bi lii la nangu ay sa waxu lii la nangu ay sa yoon bi leer na ak allah mustaan loolu diine incha allah yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent bi alayhi salatu daf ñoo tegal diine bi ba mu leer nañ xamal ne aalimul xayb le monde invisible appartient à qui à Allah subhanahu wa taala. ça c'est vrai xam nga ni tey jii nii suñu maamu nii dinañ la mere de. Euh, ñun moom incha allah ba ñu duggee ci terrain bi la ñu pare pour ñu mere ñu bi iznillah donc ñun. newul parce que li fi wax nii aussi euh, ñoom nekkul de bon mën naa ne dégguñu. waaw ko fi wax de toutes les façons dégg nañ am dégguñu. Mhm. xaq moom dégg moom dafa yox dafa neex a dégg dafa neex a xàmmee ca loola moom mooy dafa am xam-xamu muy la sorcellerie am xam-xamu xaq muy la arruqyatu shar'iyya ñoom ñaar nag mënuñoo mbëkkante parce que ñee ngelaw la ñuy wax ak rab mhm. ma fàttali encore une fois borom subhanahu wa taala sàkkul ngelaw ak rab seytaane la sàkk ak jin mhm. jin moom mooy jullit bi seytaane nag moom mooy nekk ay différentes formes di def ñi ay faru rab ak ay cor rab ak nekk su dul noona mhm. donc lii moom mooy li am ngelaw nag ñoom ñoo koy def ñoom ñoo koy wax ngelaw wala dugg lii moo la dugg ak mbir yooyu noonu et cetera et tout wala xool la naan la biddéew nga amee wala kii naan la rab nga amee ak mbir yooyu noonu olof lu mu xamul rab la koy wax. rab olof bu la bëggee xas te xamul lu lay xasee dafa naan yow comme rab. comme que amul na tour dem na ba wërngal këpp ca loola. Mhm. donc mais seytaane moom mi am billahi aleykum ma laaj leen yéen téléspectateurs yi. borom bi subhanahu wa bi nga xamante ni moom képp moo ñu xamal lan mooy jin. Mhm. xanaa nag. wallahi aleykum moom moo ñu mën a wax lan mooy faj lii ak lan moo koy dindi te alquranul karim la ñuy joxoñ yonente bi alayhi salatu wasalam la même chose lii la ñu wax ba pare nag ñu décortiquer ci alquran ak ci sunna yu ñu daganal ak yu ñu tere ca loola mais nag malheureusement aujourd'hui ki nga xamante ne nii donc euh, chifaat bu rëy la am et cetera et tout ça donc bu egsee ne la man maay xalif général des jin man maay lii man maay lee et cetera ku nekk di toog rajo yi di la tiim ngay wax lu la neex donc ci loola dafa fekk confronté woo ak ña nga xamante ni ñoom ñoo xam aalam bi dëgg-dëgg mooy le monde parce yàlla monde des jinn et le monde d'humain mhm. moom moo tax nit ki di def ay cauchemar ak ay rêves parce que là yaa ngi ci monde des djinns mhm. quand tu fais des rêves et yaa ngi ci monde de djinns boo yeewoo nag yaa ngi ci lële ça fait partie de l'humain ça fait partie de l'humain donc doomu aadama dafa nekk à cheval du monde des djinns et le monde et le monde d'humain d'accord ah, donc pour ñu jeexal lan ngeen di fajee xam nga hôpital da dem ñu jox le comprimé nga mhm. faju yéen ñi par contre lan ngeen di jox doomu aadama ba faju waaw alhamdulilahi rabbil alamin nit ki bu dukkee ci ñun tout d'abord dafay def la consultation mhm. bu defee consultation ba noppi dafay ñëw dugg bureau de consultation ñu consulter ko ñun deux types de consultation la ñuy def mhm. loolu moo ñu différencier ak yeneen cabinet mhm. ruqiya yi ak et cetera et tout ça ñun dañuy consulter nit ki théorie ba pare parce que des fois seytaane bi mën na laa wax ne yow nga ñëw di traité wu nga wax li la metti fekk ne seytaane bi du loolu dafa làqatu feneen donc ñun aussi il faudra qu'on fait les deux consultations mhm. on fait la consultation théorie mooy mhm. dañuy laaj nit ki lan la mu expliquer ñu soxlaam ak mbir yoonu et tout ça il y a des yu ñuy posé doomu aadama bi mu répondre ko ñu remplir fiche am ba noppi mhm. xam ne kii exactement ci théorie lii la ñu gis ci moom après ñu woo ko dugal ko ci saali defal ko pratique mooy jàng alquranu karim ci kaw buñ ko defee bi iznillah bu nekkee seytaane moo nekk ci moom wala beneen feebar wala quelque chose comme ça. dañuy dinañ ko xam te dinañ réagir incha allah. donc lii bu amee ba noppi. Mhm. ñu jox ko ay médicaments. on a des médicaments de médicament yoo xamante ni si eau coranisé tout est coranisé. d'accord eau coranisé mooy alquran non non non non alquranul karim la. boo xamante ni dañ ko coraniser ñu jox la ko nga dem nga sangoo ko. Mhm. am na aussi ay cuuraay yi nga xamante nii c'est euh, traditionnel. Mhm. ñu jox la ko. xeet yooyu seytaane ñemewuñ ko ay cuuraay ah, am na dañ koy suuroo am yi nga xamante ni aussi ay huile huile la yi nga koy diwoo parce que ñu ni dañuy yëngu ci tibbu nabawiya moom mooy médecine prophétique bi nga xamante ni ci côté garab lay yëngu mhm. immaa mu nekk côté lem wala mu nekk côté xabati sawda grain bi wala poudre bi mhm. wala mu nekk fenugrec mooy xulba mu mhm. nekk grain bi wala poudre bi wala mu nekk huile d'olive ba ma la wax léegi-léegi ak yeneen ni ni mel yii insha allah la ñuy jàppalante ak doomu aadama yi ya nga xamante ne ni seytaane yi ñemewuñ seeni xet te aussi baax na lool ci ñoom ñu jox leen ko te alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi def ay résultat ici au Sénégal et à l'extérieur et walillahi alhamd à partir de voilà c'était votre émission santé en 7 je vous rappelle que yéen a ngi amoon ki nga xamante mooy Sada nekk tradipraticien fële ci à la maison Rokia Sénégal donc nag gis nga euh, fànn yu bëri nga xamante leeral na ko donc nag bu fekkente ne am ngeen ci ay questions rek tàmm ngeen seen seen émission santé en 7 si li nga xamante ne mooy commentaire yi boo leen ko posé incha lépp rek lu si aaju leen ko leeral pare rek dinañ leen ko jox incha allah en inbox donc Sada Kane ça a été un plaisir ma dalal la si plateau bi. barakallah fikum di mm-hmm. ñaanal di la ñaanal yow. Mm-hmm. donc di ñaanal aussi sénégalais yi. Mm-hmm. donc yàlla na borom sotti tawfiq ak salaam ci réew mi en même temps aussi may ñu ñu jub. may ñu tamit tawfiq ak salaamatan salaama bu baax a baax. donc may ñaanal képp koo xamante ne nii yaa ngi yëngu ci. milieu bii nii nga nekk sama mbokk raaq yi mhm. ak et cetera et ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mhm. donc di nuyu aussi bërëb ba ma jógee moom mooy waa Malika ñi nga mhm. xamante ni macha allah ñoom it gàcce ngaalaama ci ñoom ñëw nañ ñu dalal seen doom di ba ma ñëwaatee ñu dalal seen doom ñu ubbil ma seen i porte et tout ñoo ne ñu ngi leen di ñaanal borom subhanahu baax yéen it la même chose yal na yàlla def télé bi insha allah télé ay réalisateur nekk en même temps sama cadreur euh, di Mbaye Kébé maa ngi leen nuyu di la ziar am internet c'était tout pour aujourd'hui ñu ngi leen jox rendez-vous prochainement ak beneen invité nag lépp luy santé en set te wall di jox si suñu wàllu wér gu yaram dañ koy indi fii si Sénégal set bu ko defee ñu digtal leen ngeen xam nan ngeen di def pour dem faju si jàmm ak salaam ngir ngeen am wér gu yaram loolu mooy slogan bi donc ñu ngi leen jaajëfal à la prochaine incha allah merci beaucoup.